maaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki àddina bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen nuyoo fii ci péncum jànnatul maxwa di péncum sëriñ Cheikh Béthio Thioune jaamub sëriñ Saliou yal ko yàlla dolli ay ngërëm te dolli ko ay leer ca sangam bu tedd ba Cheikh Saliou mbake no ngit am jotaay ak disering bi di Serigne Saliou Ndigal Thioune mu ànd ak di generalam, muy Serigne Saliou Midadi Thioune pench mi ngeen ñu fekk nak nu fi dundal bis bi nga xamne ndigalu Cheikh mohammed muntaka la nun ci pench mi lañu yaro sunu ndaw li ci ëpp ci pench mi lañu ko défé penc mi nga xam ne barkeel na barkeel boo xam ne fii bi ko sëñ Béthio sañce ak léegi yaakaar naa ne ku xamoon jannatu mahwa gu jëkk ga ak léegi di nga xam ne lii kéemaanu sëriñ saaliwu la waaye nag ñiy dundal xasida yi tey di ñoo xam ne ñenn ñi sunuy rakk lañu ñi ci des àgg nañu sax ñi ci dess ag nañ sax ci doon suñu ay doom té lepp liggéey bi ci lañu juddoo ci lañu yaro ci lañu maggé wayé no ngi nuyu cheikh mouhamadou muntaka mbacké mi nga xamné moy mooy général des mourid di nuyu ay jëwrinam yépp tambalé ko ci ay rakam ak jambar yi nga xamné ñom lay lay liggéeyloo di len sante bu baax di len ci taxaway bis bi waaye di sante Cheikh Mouhamadou Mountakha moom mi nga xam ne bis bii moo ko jëkk a wooteel sëriñ Touba ci kaw suuf mooy mu toog jataayu sëriñ Touba woote bis boo xam ne bisu xasida képp la woote ko ci contexte boo xam ne ñëpp xam nañ ko mooy tawat si nga xam ne moo wër àddina ñëpp xam ne c'est une guerre mondiale mu génnee ngànnaay yi sëriñ Touba yi. digal murit yi nga xam ne ñooy jàng xasida yi ñu dox ci kanam moom mi généralu sëriñ bi moom mi nga xam ne moo xam fi jamono toll moom mi chef de guerre bi mu jiital xasida yi jiital ñi koy jàng jiital ñi ciy liggéey ngir ñu mën a taxaw taxawaay boo xam ne mooy taxawaayu Cheikhul Khadim ak ci jamono toll ak li jamono laaj loolu nag loolu noo ngi ciy sant bu baax a baax a baax sëriñ bi boole gim ñu ci boole liggéey la boo xam ne 2021 bii sëriñ Touba dina feeñal loo xam ne buñ ko ci xamul boo yeboo ñu xam ne dootuñ ko xam mukk sëriñ bi xasidaam yi moo di liggéeyam moom la liggéey ci géej gi moom la liggéey gànnaar moom la liggéey ci jéeri ji moom la bokkul ak kenn moom wax na ni dina jihaad ci ragal yàlla ak xam-xam waaye wax na ne dina jihaad ci xalimaam kon bu fekkente ne dafa génne xalimaam wax na sax ne daa ji muy bindee mook dereetu saaba yi ñoo yem sëriñ bee ko wax daa ji muy bindee mook dereetu saaba yi ñoo yem wax na ne xalima yi tamit bu ëllëgee ci li ñuy décorer aljanna ni ni saabar yi nga xam ne waa ahlu badrin ak ña daan xare lislaam moom lañuy jëfandikoo foofee ñu leen wékk fa la ñuy wékk ay xalimaam kon nanu xam ne lii liggéey bu rëy la liggéey bu laaj teewlu liggéey boo xam ne dafa war a ànd ak yar ànd ak ay teggin ndax dëkk bi am na gan ñoo xam ne tey jii bokkuñ ci nun dëkk bi nit ñi rek lañuy gis waaye jinne yi ak malaaka yi ñoo ëpp ci mbooloo mi ñoo gën a fekkee si liggéey bi ñoo ko gën a seere si borom Touba it mi ngi ci sunu biir tax liggéey bi ku ko yëkkati laal nga borom Touba ci boppam lool yi nag wax dëgg yàlla ku ko fekkee te teewlu ko te góorgóorlu ci sa kem kàttan war ngaa sant bu baax sëñ Béthio nag sunu borom moo ko beral ak cant ci lépp loolu liggéeyam bu ràññeeku bi bokk na ci xësiday sëriñ Touba yi li mu ci am ku dul sëriñ Saaliwu Mbàkke mi ko ko defal amuloo ko moy mbolo mo xamne dañuy bot seeni loxo di jang khasside yi te amul ab ab app wala ab way dañoo dem rek ba li du fi xaj nañu wañi yenn kuréel yi ñenn ñi nañu jang mu melni ni mepp jang nañu lolu Cheikh beccu rek ku am liggey la bo xamne Serigne saliw ma daan jël ay dongom. di bolé ak mom ñuy ñew ci cant diko di moko ko fagul. mo dem ba may ko mbolom bopam mo xamne buñ defoon ay kuréel fii di jàng mën nañ fi am weer kuréel bu jàng doo jàngaat ndax ñun fii lan yaroo kuréelu jannatu mahwa bu njëkk ba ñun ñii la tey sunuy doom la ak sunuy jarbaat kon liggéey bi kanam rek la jëm waaye jëm ji ko jiite ànd ak rakkam ji ñoomit it ameel nañu Serigne Touba ak cant gu rëy ci lii mu leen liggéeyloo ndax jox la pénc ci dëkk bi jox la ay moyens nga mën a daloo say gan bernde leen teral leen loolu yombul penc mi andiwuñu fi ay añ andiwuñu fi ndox andiwuñu fi dara ndax li fi ne da koo mate moom dañ ko ne liggéeyal rek waaye am nay kuréel am nay jàngkat am nay bernde am nay toggkat am na lépp sëñ Béthio mooy nit koo xam ne liggéeyal na Serigne Saliou ba su soxlaa dara du ko jégaani da koy làmb ci mbooloom rek fekk ko ci lépp loo gis fii tey ak ñi koy liggéey ñëpp ci mbooloo mi la ñu loolu nag ak cant la gu rëy rëy goo xam ne lépp luñ fi liggéey yàlla na ko ci Serigne Saliou defal tawféex dolli ko ay ngërëm yoo xam ne yu kawela la yu mësta jot ndax ay doomam bëgg nañoo lébu liggéeyam bi foo xam ne mosu faa àgg waaye li ñu am ci sunu xol xam ko ci sunu bopp ci lu ñu war a wax ci bis bi xajul ci jataay bi ndax dafa mel ni aalu bis bi daf ñoo jàpp ndax lii dafa ëpp dafa yéeme waaye nag buñ delloo ndakaaru ba xel yi toog dinañ waxtaan ak nit ñi ndax lii taarix la lu yéeme la rawate na nag ci weeru muharram weer wii fa bari ay ngëneel mooy moo jiitu ci ñeenti weer yi nga xam ne jàmm rekk lañ ci daan dox mooy trêve yi daan am bu ay ay ak ay geer daan am ci pays araab yi kon sëriñ bi li mu woote bisu jàmm la li muy jihaadal ak ki muy jihaadal nag kookee moom yàlla bu mu xam jàmmi sëriñ bi ndax moo ñuy fitnaal asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi siyaar bu wér di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu ak di ñu di siyaaree sëriñ Mountakha borom mu yàggal ko sëriñ sëriñ suñu sang di suñu sëriñ di ko ñaanal mu yàgg loolu te ñaanal sëñ Saliou Ndigal Cuun mii toog di sunu xalifa di ñaan nag day bis boo xam ne daa doon bis bu bis bii kat bis bu njëkk la mën nanu ne bis bii ñu ngi koy doog a teewee xasaa it yàgg nañ koo jàng ndax Serigne Touba ko digle woon joxe ci ndigal sunu wayjur wii di sëriñ Béthio di sunu sëriñ nga xam ne lim ci def ci xasaayit ci digle ko digle am ñàngam bis bu yàlla sàkk ñi fi taxaw ci suba ak léegi loolu firnde ci lu jar ñu koy leeral ndax biñ fi taxawee ci suba ak léegi ba tey gisoo ci kenn kuréel ñoom ñëpp dañoo bot seeni loxo di ko jàng buñ ko doon def fii ba suba kuréel yi dinañ wër te duñu jeex. loolu nag day firndeel seen Béthio ndigal la ma jotoon ci Serigne Saliou ngir mu fonk xasida yi te mu teg ko fu mu ko tegoon ñu gën ko ci ràññee ak lii di màggalu Touba gi ñu jub si waaye nag banderole yi gis nga ko liñ ciy bind grande nuy des xasaayit kon bis bii du woon bis bii ko tax jóg kon yàgg na noo def nuyu xasaayit ak mu ne waaye nag bis bii li tax muy gën a am solo mooy ki ko digle ki ko digle daa bokkul ak ñun ñii xasaayit li baax baax baax ki ko digle tey day tax mu gën a baax ku joxe ndigal tey nee na ko fekk bii jàngal ko xasaayitu Serigne Touba yii daa tax luñ ci amoon benn ci doon ko jàngal sunu bopp danañ ci am téeméer Serigne Mountakha man dama bokk ci ñi ko xamoon balaa moo toog ci xelal xalifa Serigne Touba gi ci njaareem ndax daal di sëñ Bassirou Sy la ne woon weeru koor gu jot fa daan woore Serigne Mountakha mësta siggi ci xasida yi ci la mësa ne ci ku ko xam moom la mësa dund loolu ñi ko xam bu njëkk xam nañ ko ci kon bu wootee lii tey réew mi toll demee ci jafe-jafe yi mu demee ci mbas mi ak ci tawat bi mu woote journée xasaayit daa jaar yàlla fu mu bëgg ñu jaar ko fa muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba li mu wax ci xasaay bi te joyal ko yonent bi sallallahu ba muy ñaan yàlla yàlla da koo boole woon ak yonent bi mu jaar ci yonent bi sallallahu ba doon xaadimu rasul yàlla ku koy ñaan da nga koy jaar ci yonent bi sallallahu mbindum Serigne Touba yi nag dara du gën a kawe ci ñaan yonent bi ci tagg ko ci bégloo ko Sëriñ Muntaxa comprendre loolu xam ko moo tax mu yóbbaale ñu ñun ci tawféex ba tax ñu def li def lii nga xam ne ndigalam la Sëriñ Tuubaa nag daf ne julli géej yeeg yëpp ñun mën naa yéeme ci ñeneen waaye xam tolluwaayu Sëriñ Tuubaa as tuut ci ñun day xam ñun xam nañ ne yéemewul Sëriñ Tuubaa nee na lii sama miracle mooy sama bind yi sama xasida yi moy sama kema xasida yi moy sama miracle kon bind yit ne xasida yi tuwasilu aqlami ila lahi haabiran bila khalwatin wallahu ama xam kama akhna kon ku fi ñewon tay jaay jang ben baat rek ñibi da ko don jar kon ñuy santat baax rek tay ñaan serigne Mountakha mu yagg fi ndax bu fi yagge kat wóor nanu ne ñun ngërëm liggéey Sëriñ Tuubaa ndax ku la gën a xam yoon wi bu jiitoo boo toppee ci ginnaaw wóor nanu fa nga bëgg a yegg da nga ko yegg li bis bi kawe kawe kawe ndigal lim ñu ci jox muy baatub ndigal loolu nga xam ne mooy fondement yoonu murit jox gim ñu ko jox ci bis bi moonu gënal luñ fi mën a jële kon ñu ngi ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñu yàgg koo ànd ak moom ci barkeb sëriñ bi jërëjëf jërëjëf sëñ waaye sëñ Muntaxa bi wootee bis bi danoon mesure barrière yi ak masque yi ñu fekk fii janatu waa sëriñ bi takk masque mboolem taalibe yëpp takk masque ndax ko Covid 19 bi ni ko sëñ Muntaxa diglee ñu fekk mboolem cantaako ni doxalee ko noonu loolu loolu ci mën a wax ni cantaako ni jëfee ndigal sëñ Muntaxa ndax gis nañ sëñ bi takk masque ñoom ñu takk seen masque ndax corona bi ne ci àddina loolu loolu ci mën a wax. waaw sëriñ bi moom li mu digle da cee ndax gëm yàlla daa bokk ci gëm dogali sunu borom gëm dogali sunu borom weesuwul mu wàccee fi mbas nga gëm ne am na xamal ko ñi nga ko war a xamal muy sag ñooñ ak mboolem jullit ndax moytukat lu am solo sunu borom moo sàkk nit ñi xalaxal mawta wal xayaat bis bu nit di kenn mënu koo mooy waaye ginnaaw loolu kat dane moo ñu wutal ay médecin mooy fajkat yi Serigne Saliou Mbacke waxoon Cheikh Béthio ne ko na jàpp ne médecin yi de luñ la digal man mii maa la ko digal jotoon ndigal ci médecin yi ci luñ ko wax na jàpp ne moom Serigne Saliou ko loolu nag day wanewaat aaya bi sunu borom naan wabtaxi fi ma aateeka daaral laaxira ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبقى فسادا في الارض ان الله لا يحب المفسدين موي ادنا بي ني ني ني في بام ني دون في جوغي وارا ني فاتلي بو الاخر بام ني سوبر ني فيدي كون لي سيني مونتا خا ديغلي ميدسان ديغلي مي ميزور باريير كيب كوي نيت تاي دومو ادم سون بروم فونك كو وقت القران ني نيوم لا غنا فونك فونك كيرغي نك دا ويسول ñu xam liñ ñuy diggal li ci ñun ñun ñu ñun ñu bëggal ko suñu bopp te jitu kon sëñ Muntaxa lool rek la jitu ndax yaakaar naan bu ñu wërul liggéey Serigne Touba bi ñuy bëgg duñ ko man bu ñu wërul sam suñu njaboot giñ bëgg duñ ko man kon wéré lepp foofu rek la Serigne Muntaxa woote moo tax ba nga ñëw fekk suñu dal ndigal momit mu jité ko tak mas nga ñëw fekk ñëpp tak mas di jëfë ndigal li ndax ndigal li ka tak mas ki ci la jërëjëf واعظم لكل ذي تعلق بها